mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay Südmodell. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaan mbégte contentement pour yéen ñuy suivre sur Kewel Info kon ni ñu koy defee à chaque fois tey nag ñu ngi fii si Mbao euh, ci salle de musculation bu euh, def sport ah def sport nag euh, tey ñu ànd fekk ki nga xamante ne moom mooy Boucher Ketchup mu war a bëre le 15 mai ci digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Alaaji Mbay gannaaw ba ñuy jëlee ki nga xamante ne moom mooy Alaaji Mbay suñu confrère organe jëli ko di ko nuyu au passage tey nag. ñu fas yéene waxtaan ak moom mais li ma gën a étonné mooy salle bi ñu fi fekk boucher wax dëgg yàlla gis naa fi ay champion bu ne ñu gis ni coach bi nga xamante ne moom la recruté moo ma ñaan na ne ma nag bu ko wax mu ne ni d'après ba ñu defee ay source dañ ne il est renommé international boucher nag ñi doon wax combat bi jaralu ko ay day comédie lii ñu gis wala lii ñu leen di bëgg a wan gëm naa ne boo ko seetaanee di ngeen xam ni carrément kii combat bi am na fu mu ko teg dama koy bàyyi ñu nuyoo. ñu dugg nag ci séance d'entraînement yi mu doon def ba ñëpp gis mbëri mbëri yu mag ñëw taxaw di ko seetaan naan ko am nga doole yëpp dañ ci waxtaan ak moom maa ngi lay fay Fatma maa ngi lay fay maa ngi lay siyaara maa ngi lay jox sa wàccuwaay maa ngi nuyu Sénégal di nuyu monde entier di la nuyu bu baax yow ah di nuyu ah, sama caméraman bi maa ngi nuyu Kewel Info di nuyu staffu Kewel Info yëpp di nuyu sénégalais yëpp di siyaar ñëpp waaw. kon li ma wax sànq gis nañ ni am na ay séance yu ñu la jël après mbokk internet yi dañ ko gis mais ju gis ni séance d'entraînement yi dafa mel ni comme si c'était que ni benn boucher bu bu buy bëree boucher boo xam te ni tey koy ñoom ay ñoom Balla Gaye tey li ñuy entraîné ñu gis la tey coach ànd ak yow nga yëkkati loolu lan moo waral. waaw Fatma kenn du wax lépp ah Ketchup nee naa leen ba tàyyi day lijjanti boppam kafut at yaa ngi dem. te at yi dafa gaaw te ñun ay xale lañ yoo xam ne ku ci nekk rek tey lii gaa yi am danga ko war a am far parce que xéewal yi fi yàlla teg pour ñun la ñun ñoo ko moom ñun doomu aadama yi nee naa la Ketchup facette bu ne mën na ko ñëwee facette bu ne mën na ko dikkee bu kaf jotee kaf la waaye bu dëgg jotee dëgg la ñu ne dañu nekk ci benn organe boo xam ni ak benn wéy boo xam ni caaxaan waratuñu te yàlla mi ngi ñuy suturaal ci côté yëpp li ñu war rek mooy di sant yàlla ba pare boole ko fas jom ndax tey bu ñu nee làmb ñu ne ketchup mi ngi fa su ñu nee MMA ñu ne ketchup mi ngi fa ñu ne showbiz ñu ne ketchup mi ngi ca ñu ne social ketchup mi ngi ca ñu ne xaside yi sëñ Tuubaa yi ñu ne ketchup mi ngi ca nga ne alxuraan ñu ne ketchup a ngi ci lépp yàlla wërsëgalee la ci bu ci ne mu mën la cee may nga cof ci kon kooku doonatoo nit boo xam ne war nga di caaxaane sa life da war a gën a fonkaat sa bopp gën a soppaat sa bopp gën a wanawaat loo xam ne sénégalais yi dañ lay gën teg fi la war a teg te caaxaan waratuma su ma demoon ba bàyyi làmb mu ñëwaat yàlla def ma amaat ci cër bi ma ci amoon ba àdduna bi yëpp bàyyiwaat ma ci xel kon dama koy utilise jéem ci mos li ma ciy mos balaa ma wees. tey coach bi nga recruter ndax dañ daan gis ñi daan recruter mais tey lan moo tax nga recruter benn coach boo xamante ni tey dafa renommé international mu nekk coach boo xamante ni yaa ma ñaan ne jarul ma koy wax mais lan moo tax loolu combat bi moo ko jar wala dafa am loo bëgg a wane. ma jarul wane parce que man dama jël sama xaalis bu bari def ko ci sama liggéey muy instant bii nii muy combat bi man maa te jël combat bi maa ngi nuyu moo Gates au passage moom mi nga xam ni tey moo ma delloo si waat ci làmb tey amaana bu du woon moom tey mën naa bàyyi làmb mu jël ma décroché ay millions jox ma MMA ma am licence su MMA professionnel boo xam ne tey boo duggee Google def ana les les les les MMAteurs yoo xam ne am nañ ay ay ay ay licence su MMA sama tour da ciy génn sama visage da ciy génn parce que Google ma reconnaître te yàlla def na ginnaaw yàlla moo géet la kon maa ngi koy sant di ko gërëm mu jógewaat fa joxaan ma xaalis bari na ma bëri la ak Alaaji Mbay làmb ji njëkk a yàqu mu may ñu xaalis bi joxaat ñu beneen xaalis na ñu bëri leen kon kooku dañu koy gërëm di ko sant ku santul nit doo ku santul yàlla doo sant nit te ñun ku ñu def ku def ñu wax ku deful doo ñu wax ku def dégg ku deful doo dégg dara làmb ji nag mu jaral ñu ñu recruter ay boxeurs yoo xam ni international lañ kenn ki mi ngi war a def championnat d'Afrique léegi léegi yàggatul fii ak deux semaines incha allah kenn ki yor ma musculation di def sama yaram loo xam ni gëj naa koo sentir depuis 2008. kon tey ñooñu awma seen fay du ma wax seen tur mais incha allahu rabi bu combat bi jeexee ba ma toog ci kaw alaaji mbay toog plateau dinaa wax sénégalais yi nan laa def ba daan ko incha allah euh, combat bi euh, sa adversaire alaaji mbay dégg nañ sax ñu ne combat bi da nga complot complot mooy yow la moo gën gën a favoriser yow ci côté mystique bi gaa yaa jàpp ci côté physique bi euh, mystique bi gaa yaa jàpp ci côté koom-koom bi loolu lan nga ci wax waaw alaaji mbay mooy wax yooyu dégg naa ko mu naan dañoo complot moo géet dafa bëgg ma daan ko gars yi dama bëgg na bàyyi loolu ay man maa dama am xaalis dama am gàllaaj dama am lii man mënuma dara yàlla suñu borom moo mën bu bëggee bu jëlee avance jàmbur ba pare ragal danaan damaa ragal mais bu ma jéem a jaxase ak sénégalais yi wala mu may jéem a jaxase ak kilifa diine yi wala mu may jéem a jaxase ak nit ñi man ku ne xam na ni du ma bàqu du ma ndamu man je suis Serigne je suis taalibe Serigne Touba Khadim man damaa wàccee sama bopp taalibe bu xeebu laa Sëñ Tuubaa rek ginnaaw yàlla ak yonent bi moom laa yaakaar Alaaji Mbay damaa entraîné jël combat am wóolu ni dama koy daan gëm ni dama koy daan moo tax ma jël combat am kenn du jël combat naan dañ lay daan te lépp boo ko jëlee da koy teg ci yàlla si loxo yàlla am naa samay nit nag yàlla nit ku ne yàlla dalaa bind ak ni mu la bindee juróomi baaraam yi ni mu wutee noonu la nit ñi wutee nañu nangu loolu man ni ma mel ak ni mu mel xëj na yàlla boole kii wuñu maanaam yamale man yàlla moo ma jël def ma ci xolu nit ñi def ma ci xolu kilifa yi àdduna bi yëpp bëgg ma ku ma gis sopp ma bëgg miinanteeg man bëgg xamanteeg man ndax xam nañ sama jikko xam nañ ni ma mel mais moom tey bu taxaw naan ay di euh, nee na day moom ëpp xaalis moo ma lii waaw bu ma neexee ma ne waaw yaa ngi dégg yàllaa ngi may teral yàllaa ngi may suturaal kon bu ma ne ma sant man damay sant du ma xalab maa ngi sant bu baax maa ngi am ay xéewal maa ngi mel ni ma war a mel maa ngi am li ma war a am yàllaa ma koy jox mais tey làmb làmb lay am mais cadre sport nañ ko sport ba mat mais bu mu taxaw fii di ma jéem a xam ma ruube naan ay nee na gàllaaj moo ma ëpp gàllaaj ak lii man su ma sañee su ma su ma li may ñaan yàlla mooy ëpp ko gàllaaj loolu laay ñaan yàlla pour daan ko mais tey yenn yi jarul di xam ma mel ni daf may jaxase gaay ak yooyu noonu man mënu maa jaxase gaay lu mu wax 100 mën naa ko wax 150 saa yu génnee mën naa génn waaw man na dama gëm sama bopp di liggéey nii di entraîner te incha allahu rabbi li ma gëm man li ma gëm ba yëg ko sama yaram ba sentir ko mooy alaaj may du ma def ak moom deux secondes. looy wax ni yow de. deux secondes ko def moom. lan moo dañ la koo wax sa entraînement ngay yaakaar wala. parce que maa jël avance am ba pare gëm dama koy daan di entraîné alaaji may mënu ma yëngal bokkuñu sax bu dee bëree maa ko dàq bu dee fecc maa ko dàq bu dee koofur maa ko ëpp dinaa bëreeg moom 150 minutes du duma sonn maa wax ak yow de. dina bëreeg moom 150 minutes. du ma sonn. te yow euh, tey comme boo jugee géejawaay jug est-ce que mbëru géejawaay yu mag yaa ngi roofoo ak ñoom di kontaan ak maa ngi ko roofoo instant bi ni Balla Gaye fi nekk Balla Gaye mi ngi fi Sa Thiès mi ngi fi ñoom ñëpp maa ngi kontaan ak ñoom 24 heures sur 24 ay ñoom fils de Balla ay ñoom damay génn ba sibitiri di di contact ak waa mbaaw yi damay contact ak waa maa ngi contact chaque jour di contact ak ñambaan sama xarit yàlla na ko yàlla may ndam ci kaw Alboury maa ngi contact ak moom 24 faama maa ngi liggéey lu méttee méttee méttee barki Serigne Bamba. kon ñu ngi wax ni combat bi El Hadj Mbaye du la diriger yaay diriger lépp. El Hadj ci combat bi parce que lu ma gëm la dama ko ëpp kattan ci làmb ji. waa dama ko ëpp doole fuuf fuuf sax ba pare dama ko daf ma leer ni man duma sonn ci combat bi. tamit bi nga def keroog gis nañ la tamit nga bett ñu bari ci MMA bi nga bëgg a ñëw am loo wane waat est-ce que nekkul. MMA moo gën a métti làmb. vingt cinq minutes la amul taxaw vingt cinq minutes yi da ngay daan nit ki sax ngeen di bëri ci ci biir suuf si tànk fëggul taabul bi doo doo jóg amul daan ñu tiire làmb benn jël la te benn jël boobu mi ngi ci man dàq bëri alaaji mbay waxam ju bari ji na bàyyi naan dama ko jàpp daw kii ko mu teggi def nii rotation deful benn rotation yéen a ngi seetaan làmb ji dem leen ngeen jëli làmb ji 2STV wala ngeen jëli ko feneen ak feneen man maa jàpp di ko wéyale man maa jàpp di bitter ni man maa jàpp di xatar bi man maa jàpp di def rotation Alaaji Mbay da doon xool fu mu daanu rek kal tànk bi te jël bi leerul Moustapha Gueye wax na ko Bécaye mbay wax na ko àdduna yëpp wax nañ ni jël bi leerul léegi la 15 lay leer incha allahu rabi. ñu gis ñu bëri dañ ne Boucher écurie individuelle lay ñëwee ngay ñëwee ndax. Boucher école de lutte Mor Fadam lañ ko xamee woon est-ce que ba tey foofu nga nekk ba tey wala individuel ngay ñëwee wala écurie euh, kii ngay ñëwee Kër Mbaye. man maay géejawaay su ma neexee jugee école de lutte Balla Gaye su ma neexee jógee école de lutte Mor su ma neexee jógee écurie Waalo fu ma neex dem man maay géejawaay neex naqari tey buñ nee Balla Gaye 2 la de guerre tey ay na guy gi nii doo ci teg keneen ku dul man man maay géejawaay nañu waxante dëgg. xale yëpp li si topp yëpp samay rakk lañ samay xarit lañ waaw ku ci am tomba boo mu wooyee ma jàpp si ni ma ci man a jàppee mais tey yàlla nit day def yàlla day day njiital nit boo ko nangoo rek yàlla jiital la noonu la demee mais tey man géejawaay laa tey bu ma jugee ñëppay jóg alaaji mbay écurie Mor Fadam laay bëree écurie Mor Fadam laay bëree ñoom mbayti na may indi ñoom njambaan ñoom safara ñoom buusita ñoom ëmma seen junior gars yi ñoo may indi mën nañoo xaar boucher guy gi indi guy gi nekku fi. te waaw xam naa ne sama combat du ko fekk waaye bu ko fekkoon daf may indi amuñu benn problème jotewuñu dara uh-huh. waaw sama mag la sama xarit la uh-huh. waaw. Alaaji mbay ku ne Alaaji Mbaye ne Ama ku ne Boucher ne Ama moo nar indi Alaaji Mbaye. non non Ama instant bi du sama xarit balaa mu jeex parce que moom moo fi nekk naan ay dañ may daan moom moo ne daf may daan far force Ama moo wax loolu kenn du ko fa moo nekk fii ne Alaaji Mbaye daf may daan. neex naqare alaaji may daf may daan nee na sama sarax mbuusu ndox la moom moo ko wax ak tàcc maa ngi koy xaar. la man sama sarax moom saraxam ngay laaj saraxu alaaji may. saraxu alaaji xaw ma ko bu bis baa daal incha allahu rabbi maa koy féete kaw bu neexee yàlla ak yonent ndox meeg lool sarax non loolu dafa maa mën a téye maa ngi gërëm waa Ndiassane Cheikh Ibrahima Kounta maa ngi koy gërëm maa ngi gërëm waa Joalo maa ngi gërëm waa Njurub maa ngi Touba maa ngi gërëm saa Touba maa ngi gërëm waa mbuur Samba Ndour nag sama sëriñ la sama xarit la gi nga ko wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom wala nga dem fekk fa keneen toog ku sàgganee sa ànd wax laa lay wax Samba Ndour ki ko sàgganee man jël naa ko man. sama yoon newul ci loolu en tout cas Samba sama Samba la jamono ji te incha allahu rabbi Samba Ndour maa ngi koy gërëm ci combat maa ngi ko ciy woo saa Touba maa ngi koy woo ci combat Chérif maa ngi lay woo ci combat bi maa ngi woo ci combat bi alxaydi maa ngi koy woo ci combat bi yàllaa saw maa ngi lay woo ci combat bi borom Guinée Bissau maa ngi woo Abdouraye maa ngi koy woo borom njuus yaa ngi dégg Ngulub maa ngi woo Abdou Fall maa ngi koy woo baax borom Ngulub dëkk bi dend ak Thiès maa Fatick maa ngi woo Abdou Fall bu baax a baax a baax maa ngi lay woo papa maa ngi woo maa ngi woo Jambi Jambi maa ngi lay woo bu baax a baax borom Gambia Cheikh Ibrahima maa ngi lay woo borom Gàmbi maa ngi woo waa waa waa waa Joal maa ngi leen di woo waa Joal maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax a baax Laay Fall maa ngi lay woo ñam bi maa ngi lay woo bu baax a baax a baax si combat bi yaa ngi dégg maa ngi woo àdduna. mais li ma nga yaakaar ci combat ah? man dama liggéey dama liggéey dama liggéey nas maa ngi lay siyaar maa ngi lay woo ci combat bi Alaaji Masata Ndiaye sama papa sama xarit Masata maa ngi lay woo ci combat bu baax waaw. maa ngi ciy woo ñëpp combat bi. yaakaar ñu dégg ñu ne euh, Boucher dafa investir ay millions jox ay sëriñ ba héberger ay sëriñ pour ci combat bi est man sama kër man rek xaju ma fa ba fay héberger kenn sama kër ñaari néeg la benn man la benn sama rakk la yaa ngi dégg. kalaa laay héberger kan laay héberger dama am jot boobu moom mooy wax yooyu alaaji mbay pour jaxasema ak nit ñi mënul nekk man ñii samay nit lañ ma leen di gërëm Cheikh Ibrahima Kounta ñi ñëpp samay nit lañ. yaa ngi dégg Paata Xul maa ngi koy gërëm bu baax bolom ngulul maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm Mbay Fall kii am wax naa Mbay Fall ah waaw maa ngi gërëm Ibrahima bu Gàmbi wax naa ko maay ngi gërëm Ñambi wax naa ko maa ngi gërëm Cheikh Ndiaye maa ngi koy gërëm borom Màkkat Kulibanta maa ngi koy gërëm bu baax a baax maa ngi lay gërëm maa ngi gërëm sama gaa yi daal maa ngi gërëm. mu doole pata doole pata est-ce que tey poids bii ngay bëri. waaw ngi gërëm Doura Balde Abdourahmane maa ngi koy gërëm borom Kolda di gërëm Birane Ndour maa ngi koy gërëm Khalil Ndiaye maa ngi lay woo ci combat bi Birane maa ngi lay woo ci combat bi Birane Ismaïla Bass maa ngi lay woo ci kombaa bi Matar Diop suba teel combat bi sama bakkan wax naa la ko combat bakkan laaj teg yow xam nga man xam naa maa ngi lay woo ci combat bi Pape Bébé Bass ñëpp maa leen di woo ci combat bi combat bi ciy woo sama nit ñëpp dafa ma jaral moo géet encore une fois sama promoteur nga waaye sama sponsor nga maa ngi lay woo ci combat bi yaa ngi dégg li muy bañ dina ko dégg man moo gën ba ma koy xam du tey moo gën man maa ko njëkk a yëkkati sama téléphone bii filmer ko doon nañ dox ba ci yàgg àdduna ñëw dem leen ngeen xool samay xam nga senegal fii ku bàyyi nit boo àndaat ak moom ñu xool lu tax nga àndaat ak moom mais soo gisee nit ñi amuñu luñ ma waxal mooy man moo géer xamante nañ parce que moo géer dama doon ànd ak moom ñu dem ba juwaloo mu jaar nii ma jaar nii waxul lu ñaaw ci man waxuma lu ñaaw ci moom ku ma laaj ci moom même chose laay wax dañoo ànd mënutuñoo ànd mu dem ma dem yàlla boolewaat nañu dañoo moo géet man xaw ma moo géet man Mouhamed Diallo laa xam xaw ma moo géet de Mouhamed Diallo laa xam man moo géet man ak moom dañoo yàgg lii muy def ci man nii du tayeefam loo xam ne la tey daf ko war ak mu xam fan la ñu àndee woon we comme from nothing bi ñuy ànd dërëm yoru ko bu ñuy ànd fukki dërëm mënu ko jënd galaas ñuy ànd daroon foo foog man ni ci yenn weccet yu mu doon dal rek mais dara yoru ko woon ba tey nii yàlla def ay milliards kon bu ma ciy jox damay sant yàlla xam ni yàlla moo ñu boole. xam su xeexee ma duma ko ba mu wàcc ci biir stade bi bu bëree dinaa ko bëriloo man maa xeexul ak alaaji may alaaji may dama koy bëriloo ba muy waaj a daanu ma yëkkatiwaat ko taxawal ko may ko espace mu taxawaat jàkkaarlook man ma waat ko bëriloog moom ba muy waaja a waat ma yëkkatiwaat ko alaaji mbay dinaa def ak moom cinq round yoo xam ne man maa koy yëkkati parce que coffre bi may indi ci biir stade bi la. maa ngi koy gërëm bu baax innu maa ngi koy gërëm waaw maa ngi koy siyaar ñëppay ñëw ñëppay ñëw parce que làmb la gars yi dana affaire comédie du comédie de non mooy jël combat di comédie moom mi ngi jaar fu ne mi ngi dugg fu ne ba jaral ko may jaxase ak nit ñi mi ngi jaar fu ne mi ngi dugg fu ne kon tey ko may dara du ko may dërëm maa ngi entraîné nag ginnaaw yàlla ak yonent bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul sama doole bii laa yaakaar waaw di ñaan axlu murit Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi yaakaar ñëpp ñaanal ma ci barke xaside yi ma jàpp ko daan ko jël bu rëy ndax man warumaa daanu man warumaa daanu parce que man mbaru mbëru mbaru mbëru askan laa mbëru réew laa warumaa daanu man dama war di daan waaw man man man yéenewu kenn lu bon waaw ku ma xamul nag xam nga waaw mun nga maa waxal lu la neex mais boo jàkkaarloog man xam ni Sëñ Tuubaa rek a nekk sama xol bi yéenewu ma kenn lu bon na ñëpp ñëw ñaanal ma na ma ñëpp ñaanal dama bëgg am ndam ci combat bi parce que ndam li man man maa ko gën a mérité quoi. ñaari combat nga jël da nga jël sa combat ak Boy Naar Gaston koo tëgg ñu bari ne da ngaa jël ñaari combat ñaari est-ce que mën nga ñëw confirmer. waaw père maa ngi koy déglu ba tey waxagul dara de nee na ma dina ma tëgg mais joxaguma ma day nee na moom du ko saax saaxee nee moom xaalisam du ko saax saaxee day bàyyi ba mu leer mu soog maa jox xaalisam te ànd naa ci ak moom xam ma waaw mais man man maa koy déglu daal waaye dina ma dina fay moom ndax man moom xam man moom li ma moo gét tàmmal moom jamono ji moom gëw ma nii maanaam maay xaar daal maay xaar waaye promoteur non di nga ma fay xaalis bari. waaw parce que man maay làmb charme làmb laa te su ma paree ci alaaji mbay nii xam naa fi ma jëm. waa xam naa non bàyyi ma waaye nga naan Alboury ñamaan da koy daan incha allah rabi waaw. ren waxuma la kéccob waaye mu taar da ñëppay ñëw dama koy jaxase def ko benn muy billaa billaa <laughs> da koy billaa maynees ah. kéccob moutarde boo ko boolee billaa lay doon waaw. Ah. ci diwi. nga koo def sax ci omelette déggoo ma de. Alaaji Mbay bàyyil sa yii ngay def yaa wóolu ba jël combat bi am nga fit mën nga bëre nee nga am nga doole ngal la bul bul nekk fii di dugal suxlu combat beeg yooyu man ni nga yaakaaree yàlla nu ko raw laa yaakaaree yàlla juróomi waxtu du ma raw damay julli 24 heures sur vingt 24 nekk fi ma war a nekk di def li ma war a def. kon man ak yow làmb la nañu bëre ci fair play jàppante bëre yaa ngi dégg xol bi nga yor bu ko raw laa yor dangaa baax damaa baax dangaa gën damaa gën yéene nga ma jàmm yéene naa la jàmm waaye nag biir keew c'est autre chose ndax benn ndam mooy ñëw te benn ndam mooy ñibbi te incha allahu bi ndam loolu dama koy yóbbul sénégalais yi alaaji mbay deux secondes laa la wax bu dëggalee boppam du ko am ak man bàyyi ma waay deux secondes ma daw alaaj may deux secondes laa ko may ma daw dal ci kawam. damay dal ci kawam xaw ma lu ma fay fekk lu ma fa mën di fekk tamit naa ko seere ndax xam naa li ne ci man te coffre bi laay gën a utiliser dinaa wan sénégalais yi ne bëri 40 minutes ak bëri 2 minutes bokkul waaw. pare ku ma de maa ngi gërëm Fallou Ndiaye kéwal gi maa ngi koy gërëm saa sama mon ami Fallou Ndiaye production nit ku dëggu nit ku baax nit ku valeureux. ah làmb yàlla na fi jàmm yàgg promoteurs yi nañ nekk benn ah jubóo ah bàyyi yàqante bi bàyyi yenn yi ah promoteurs yi su kenn jëlee combat ngeen xam ko seen association boobu da ngeen koy wax ci groupe bi diw kat mi ngi waxaale diw diw ñeneen ñi bàyyi koog diw waaye da gis kenn tuddee nit drapeau sax keneen ki daw tuddee ko drapeau benn nit mënul dëkku ñaar drapo kon kenn ki de mooy mujj bàyyi wala kenn ki tëgg kee kee suuf suuf daw tëgg ko loolu baaxul. mbër yi tamit respecté promoteurs yi parce que promoteur mënu la jox avance am nga soxla ko yow yoroo dara mu jox la avance nga gis beneen avance war promoteur bi loolu moo tax mbër yi bari dara nu ko am parce que xaalis day lew xaalis bu lewul ànd ak valeur ànd ak dignité yow da ngay sonn rek mais dara doo ko am ñoom Balla Gaye xamuñu woon lool da nga mës a gis Modou Lo wala Balla Gaye nit jox leen avance suba ñu rocceeku dem jël beneen avance dellookee avance am gis mais xoolal léegi seen i étage ak seen i taax mais mbër yi def loolu nii fi mu nekk nii dërëm yoruñu ko làmb ji c'est rare fi mu nekk nii nga gis ku fayee ko waat ay millions bu weesoo nii comme fi mu yem nii ci rëg-rëg nii rëg-rëg moo mujj ci catégorie bi mais instant yi ñi ñëpp tey bu ñu bu ñu jéemul am ay valeur jéem a nekk ci yoon boo xam ne day sérieux jéem a respectante seen biir du ñu egg foofu parce que promoteur yi ci boppam ñoo leen du respecté parce que promoteur yi boo waxee ñu ne mbëri ay warkat lañ te loolu du yoon. à part la Reug Reug Sa Thiès très rapidement. Sa laa faral yàlla na ko yàlla may ndam ci barke xaadimu laa ilaha illallah yàlla na ko yàlla may ndam. boobu ñu bari ne Sa Thiès waru ko jël ndax Boy Naar dégg nañ ko mu ne Sa Thiès waru fee nekk euh, mbër bu bëgg a jug rek mu jox la loxo ay risques yi muy jër yow loolu nanga maa ngi ñaanal Sénégal maa ngi ñaan Sénégalais yëpp ñu ñaanal Sa Thiès combat bi àndul ak wax muy ci Sa Thiès muy ci Balla kañ nga ma gëj a gis may sinab Balla chaque jour ñooy reerandoo léegi léegi moo ma wàccee fii ma doo ko jël sama oto ci ñu dañoo toll ci liggéey ak jëf. kon waxoon yaa ngi ñu bàyyi liggéey ak jëf bàyyi ñu liggéey ak jëf. keroog ñaar. gars yi gis Balla teew reste serein moo Gris Bordeaux ñu waxante mais nan nga gisee Balla. Balla soxlawul wax fi mu ne nii jëf la soxla day am foo toll foo xam ne dangay jëf parce que sénégalais moo gaaw a weddi nit te du yoon sénégalais ngay defal kilo kilo nga koy defal nga ma nga lebal ko kilo mu war laa fay genn waa liibar sa kilo lay jëlaale. ay Balla Gaye li mu def ci làmb bu ñu demee bay jékki ji di tëkkale Balla Gaye ak mbër nga xam ni sénégalais maanaam yàlla na ma yàlla baal mais dañuy fàtte waaw kóllëre bi dafa des dafa des nañu rafetalaat xol yi. waaw xoolal Malick Niang ko def. benn defet la am ci làmb ñu jël ko beddi ko nii ba mu gedd làmb mais pour lan parce que lépp fan si sénégalais yi ñoo koy def ñuy jël nit mu leen di defal lu ne man seetlu ma lu xew ci senegal lu mës a xew ci Sénégal dama ci doon wax seetlu woon nga loolu Amérique laa doon ne bàyyi sama liggéey yëpp te moo ne maa ngi sant yàlla maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi tëdd fu nooy man awma benn poroblème ak état awma benn poroblème ak askan wi mënoon naa di dund ba dee te du ma am ak ñoom problème sama yoon newul ci liy xew ci dëkk bi su ma neexoon parce que nekkuma sax dëkk bi ñu ne maa ngi woon en étranger mais sama deretu sénégale bi moo taxoon lu xew Sénégal mu metti ma ma dugg ci ba ci mbër yi mais bu ñu bokkul ak yow fi ñu far rek boo ciy wax rek ñu commencé di la saagaay ndey man ku ma bañ rek daa am côté bu ñu bokkul boo xam ni bëggoon ma bokk faag ak yow bokkuñu fa nga may saaga wala nga may wax lu dul yoon mais man aw kenn xaar ma yàlla yéenoo ma kenn lu bon ñëpp laa yéene jàmm Ketchup mosu mënoo koo waxal dara lu bon ci àdduna lu dul kii la bëgg te man bëgguma kooku kese sàccuma ma fenu ma violé wu ma waxuma lit lu ñaaw euh, euh, ah foo biyewu ma euh, defuma lenn waxuñu waxaluñu ma lu bon agressé wu ma defuma lenn lenn lenn lu ñaaw ci dëkk bi macha allah laa ilaha illallah léegi yow ki ma bañ as fekk dañoo bokkul benn nit fu bëgg-bëgg nga bëgg ma ci bañ te ku nekk am na choix am dañu waxante dëgg mais teewul nag yàlla. tey bu doon li ma nekk dafa bon yàlla duma ma suturaal di ma teral mais maa ngi gis sama bopp ci live bi bu baax amul benn jeune sénégalais jeune bu ma gën demin macha allah fi mu nekk nii damay sant nag maa ngi sant. Siteu Papa Sow combat bu rëy rëy dégg naa taxaw na gis nga Siteu ci suuf mi ngi entraîné te Papa Sow mi ngi entraîné te Siteu doful di fooyee làmb ji papa tamit daa am lu mu bëgg te ñoom ñaar seen làmb day metti du yomb. di leen conseiller rek mu jeex ci fair play fans yi jéem a xam ni taa ngi nii fayee ko xaalisam Papa Sow fayee ko xaalisam ñoom ñoo koy lekk kon fans yi bu ñu rayante seen biir waaw. mais social bi man Fallou Ndiaye laaj ko damay toog place xëy joxe fa fanweeri junni balaa maa ñibbi laaj ko mi ngi mi ngi may seetaan Fallou xam nga du fenal kenn du waxal kenn lu dul dëgg place laay waxtaanee parce que dafa ma doy te loo ko wax day des si yéen ñaar. loo leen war si yéen ñaar lay des du wax lu dul dëgg du jaxase du yàq ba pare fàllu ñeme naa koo jox sama sama compte bancaire rek sama crédit lépp jox ko mu téel ma ko à vie parce que nit ku sincère la Fallou Fallou Ndiaye waaw maa ngi nuyu ñëpp encore une fois maa ngi nuyu Guinée Conakry Maysa maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh maa ngi lay gërëm cheikh maa ngi lay bégee cheikh combat bi sa combat la yaa ngi dégg cheikh combat bi sa combat la barke Serigne Bamba Khalil Ndiaye Amadou Sall maa ngi lay woo sama benn pappa mooy borom melax bugul ma koy tudd mais mooy borom melax maa ngi koy gërëm Ngoy Fall ajaratu Ngoy Fall men borom or yu baax yi day def dimanche incha allah ay ndogu yu rëy ay ay conférence bu mag a mag a mag ajaratu Ngoy Fall day def conférence bu mag King Fahd Palace jël lépp teg ko sama loxo ma war ko couvrir te xam nga ni ko soxna sama lépp la soxna sama popuchi popuchi soxna te moom popuchi ah soxna mooy lépp waaw caatoo caat askiya papa maa ngi lay gërëm waaw maa yow gisee xam naa ni jot bi la waaw mais maa ngi lay ñaanal gudd fan ni nga jàppee sama yaay ji rek moo tax ah yow dañu lay ñaanal maa ngi lay ñaanal bu baax Fatma fii am ay nit yu baax daa baax xam nga bu ñu nee bu Askia ne Ketchup bu Ngoy Fall ne Ketchup bu amalu Sall ne Ketchup bu Khalil Ala Ndiaye Khalil Ndiaye Khalil xaritu Amadou Sall ne président Macky sàll ne Ketchup bu Birane Ndour Ketchup bu Doura Balde bu Papa Diouf Ketchup bu Ismaïla Bass Ketchup bu Matar Diop Soubaltel eh xoolal ne Ketchup mu réew mi. dugal ci eh, oy baye eh, ketchup bu Usaar ketchup bu Seydina Cuun Sëriñ Saaliw Cuun ketchup bu murit lan kan laa fa tew ma kenn de eh, ketchup bu Balla xam nga ketchup bu Aziz Alain Ndiaye ketchup bu Iliman Lam xam nga kon ketchup mooy Sénégal dañu waxante dëgg léegi nag loolu du neex a attan ñu soxor ñi seen xol du ci ànd waaye yàlla mooy maye sama liggéeyu ndey la ku mer xolal ma ko suuf la yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay yaay